Ah, la version ok merci beaucoup par rapport ak euh, question yi ngeen posé am na ñett question question bu njëkk bi mu ngi laajte liste parallèle yi am ci biir Benno Bokk Yaakaar mais li ma leen mën a tënkal rek mooy ñun dañoo nekk parti mais aussi ànd ak ay yeneen parti ñu constituer benn Bokk Yaakaar ñun nag dañoo am suñu doxalinu bopp dañoo am aussi suñu cuisine interne boo xam ne depuis 2012 élection bu ñu mus a dem gañe nañ ko ko ñun ñëpp ñu ànd wala ñun ñëpp ñu ñàkk a ànd li gën a am solo mooy gagné et loolu. dina am incha allah le soir du 23 janvier 2022 élection yi dinañ ko gañe parce que président ci xarañtem def na lu mu war a def ñu mu tabb aussi ñu ngi ci terrain bi dinañ def lu ñu war a def loolu moo ñuy permettre ñu am équipe boo xam ne dañoo pare pour gagner élection yi ko ñii far fii ña ñii ñakk far fii loolu du amul solo ci biir suñu coalition parce que suñu doxalinu bopp la beneen affaire aussi président wax na ko ci boppam bi nga xam ne moo jiite APR jiite coalition Benno Bokk Yaakaar ne communes yi nga xam ne quatre-vingt-quinze pour cent leaders yi fa nekk wala électorat ba Benno Bokk Yaakaar la wala APR la donc interdirul ay liste parallèle donc loolu yaakaar naa ne leer na ci seen bopp que kii nekk Benno Bokk Yaakaar wala kii investiruñ ko au nom de Benno Bokk Yaakaar lépp ci biir benn gaal bi la te gaal boobu suñu paree président Macky Sall lañ koy jëbal donc loolu laa amoon li ma ciy wax beneen question bi mooy dakaar ñenn jàpp nañ ne voilà dëgg la d'accord naa loolu dakaar enjeu la surtout su nekkee ne rawatina parti boo xam ne moo nekk au pouvoir mais ci biir enjeu boobu aussi dama leen di xamal ne nekkul question de guerre élection la rek et élection lay musa a doon et ëpp doole mooy gagner et au niveau de notre coalition def nañ li ñu war a def teg nañ équipe bi ñu war a teg lenn kay moo des ñëpp nañ doon benn pour dem gagner élection yi te incha allah dinañ ko gagner et dakaar aussi nañu waxante dëgg rek mais dakaar dakaaru Benno Bokk Yaakaar la dakaar Dakar Benno Bokk Yaakaar la lu koy firnde mooy depuis 2012 ba fi ñu nekk nii élection yi ñu organisé yëpp résultat yi ñu am nii lañ def mosuñoo wàññeeku mais ci kaw la jëm day yokk et élection présidentielle bi ñu jàll 48 pour cent lañ am loolu wane na ne benn Bokk Yaakaar moo moom Dakar et élection yi nag dinañ dem ba 58 pour cent la ñu gagné wala plus la ville de Dakar et la ville de Dakar reviendra à la coalition benn Bokk Yaakaar incha allah suñ jógee foofu Ziguinchor ñenn ñi jàpp nañ ne enjeu la. man jàppewuma ko comme enjeu parce que Ziguinchor dans sa configuration ay commune la ak ay département commune yooyu ak département yooyu Benno Bokk Yaakaar taxaw na taxawaay boo xam ne war na ko mën a gañe et incha allah dina ko gañe ñi jàpp ne nag Ousmane Sonko moom moom Ziguinchor wala ñu jàpp ne Ousmane Sonko moom majoritaire Ziguinchor dañuy nax seen bopp Ousmane Sonko est minoritaire à Ziguinchor et loolu nag balaa sénégalais di ko comprendre ñu yegg ba le soir du 23 janvier ba rajo yi commencé résultat yi di daanu la ñuy xam ne Ousmane Sonko tekkiwul dara Ziguinchor loolu nag pour mu gën a yomb pour mu gën a facile damay woo sama camarade yi nekk Ziguinchor muy étudiant muy jeune muy cadre muy femme muy sage ñoom ñëpp ñu doon benn ànd ak ki nga xam ne moom la président teg Ziguinchor pour ñu def liggéey boobu pour dem formaliser parce que formalité la rek et le soir du 23 janvier janvier 2022 Benno Bokk Yaakaar sera déclaré vainqueur à Ziguinchor et dans toute l'étendue du territoire national je vous Merci sin le monde, la séance est